tey ñu indil la teraanga bi indil la xam naa ne diwlin bi du ñàkk sax garaawul ñu def publicité rek sa diggante boroom borom diwlin bi parce que indi nañ teraanga bi waaye xam nañ ne bu lépp mënoon nekk li ñu jëndal la ko parce que seen diggante. waaw kii kii sama jarbaat la. Abdou Aziz yàlla na ko yàlla taxaw. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla jàppale. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla sàmm. Mm-hmm. dafa di nit ku baax di sama jarbaat bëgg ma. lu lu ne la ñuy waxtaan man ak moom. waaw lu ko jaaxalin mu wax ma Aziz sama jarbaat la mm. Aziz dafa baax dafa am jom mm. dafa nangoo liggéey mm. dafa am dafa bëgg lu baax nit day bëgg lu baax te loolu nag lu mu doon la baayam kat la ndeyam sëyal na baayam macha allah fii la yaayam jógee ci Grand Dakar fii sunu jigéen la dem fa mu dem ba mu fa demee ba léegi dellu si waatul bis bu jot loolu laa mosu fee ñëw kalaame mosu fee ñëw def dara am mm. jom lool mm. loolu tamit xam nga loolu dafa baax dafa am solo mm. loolu suñu relation nag man ak moom mënuma laa wax lépp parce que moom li ci ne dafa <laughs> baax xajul sax ci xajul ci déedéet dafa baax lu ma neex laa koy wax man tam moom it comme maak moom ñoom dañu mel daal ay moroom daal waaw loolu lépp nag ci moom la ah yaakaar naa dafa tukki sax yal na ko yàlla may mu ñibbisi jàmm li ci am na jom jom dafa baax ci nit nangu naa liggéey dafa baax ci nit te loolu lu mu tàmm la lu yàgg ci moom la am jom nangoo liggéey am fulla am caractère am lu baax bëgg avancé doon topp ci tànki waajuram fa bàyyam fa ko bàyyam bàyyi woon ci kër alaaji Malick ma nga fa loolu rek loolu rek dara la sa bàyyi bàyyi bàyyi la ci bërëb nga ne fa loolu am na solo waaw saa bu bàyyam gestoo yem ci moom bu bàyyam di ziar ci moom loolu dafa neex. Mm-hmm. sant yàlla loolu moo tax ma koy ñaanal fu mu toll moo ak rakkam ak ay njabootu baayam yëpp. yàlla defal leen jàmm. Mm-hmm. yàlla taxawu leen yàlla jàpp leen ndaxte ay ñu nangoo liggéey lañu. Mm-hmm. waaw.